ci nekk kilifa la ku fi jógee fii tey dem sa kër kilifa nga fa waaw ayez un comportement de kilifa respecte le gouvernement respectez-vous entre vous kii leen je, je n'accepterai plus ça et je vais devoir appliquer des sanctions aussi bien pour la majorité que pour le pour la, la, le, le groupe l'autre groupe ku fi ku fi coppite nit dama ne am leen fayda voilà plus de six heures que ñuy liggéey il reste ni intervenant Seydou Diouf bu kii di wax bu ngeen ci àndul waaye noppi leen leen noppi mag bu toog di troubler étant député dans l'hémicycle c'est indigne maintenant je donne la parole à de Diouf